Euh, jàngat bu bu macha allah bu xel mu dal d'abord ma delloo leen laaj bi mooy Paco bi ngeen ko invité fii à en tant que que membre deuxième DRD. waaw mm-hmm. <laughs> qualité membre bu ko su ko revendiquer sa déclaration marche. su revendiquer qualité mascotte parce que l'association marche yooyu yëpp ay poste élective la kan moo ko teg euh, mascotte assemblée générale ñoo toog woote ni kii def nañ ko mascotte déjà je suis très content quand su ma déggee mu wax ni dama nekk intérim 2013 je pense que. 16 ans non xam nga le problème mooy douzième Gaindé dafa am dafa nekk association bu respectable et respectueuse. parce que il est très mal placé pour parler du douzième gaynde parce que xamu ci dara. te muy mascotte bi. nekk ci biir di liggéey ak yéen man 2012 lañ ma fal. avant ma mu Moussa Gueye moo nekkoon intérimaire ba 2012 ñu def assemblée générale ñu fal ma 2012 ba 2016 mu nekk premier mandat donc août 2016 la war a def première assemblée générale. août 2016 c'était à quatre mois de la CAN 2017 Gabon ñun ñu ne assemblée nationale toog comme ñoom suñu association te assemblée nationale dañ koy préparé nañ ko pousse ba dem CAN ba ñëw loolu je pense que c'est légal ou c'est légal et c'est légitime parce que association ñoo ko seq y compris moom ñu jóge fa war a ñëwaat 2018 à la veille de la coupe du monde ñun ñëpp ñu toogaat ni nañu pousse assemblée nationale ba dem coupe du ba ñëw loolu je pense que su fekkee ñoo ci tënku d' ci est ce légal ou c' est d' accord mais bàyyi ma àggale. allez ba ñu defee loolu ba pare ñun ñëpp ñu d' accord tënku ci ni loolu la ñuy def ñu ngi léegi comme du coupe du monde ba ñëw léegi nañu def assemblée nationale dans deux ans. mu war a ñëw juillet bi passé nga ko waroon def. mais est-ce que vous trouvez que c'est normal. bàyyi maa gën non dégg naa bu baax li nga wax. est-ce que vous trouvez que c'est normal. laissez-le terminer s'il vous plaît bàyyi bàyyi ko terminer allez nga li ma la donc assemblée nationale elle est souveraine mooy décider du sort et des activités de l'association comité exécutif ñoo war exécuter donc ñun loolu bu ñu xasee ba tëmb d'accord loolu c'est tout à fait normal et légitime maintenant moom. 2012 la ñëw la ñëw fii si douzième gaynde ba 2022 lu tax boobu lay waxu ko xam lu tax waxu ko parce que il man lii mënu ma ci waxtaan ak Paco parce que Paco c'est un membre du comité qui a été sanctionné. il est sanctionné de a commis une faute très grave pour détournement d'argent non may ma bàyyil ma àggali bàyyil ma àggali bàyyil ma àggali mais tamit doo ñëw di wax non non attends attends mais mais mais daf ne yow tamit da nga da nga déglu ma invité pour que ma wax nit ñi xam lu xew waaw da ngeen ko fi invité mu wax lu ko ah, mais ça fait cinq minutes yaa wax aussi tamit invité su fekkee aussi su fekkee porte parole Paco nga ne porte parole Paco la polémique ma de non polémique alors Issa Issa allons à l'essentiel justement l'essentiel mooy je vous trouve un peu tendu quoi non l'essentiel mooy man du ma wax ak Paco parce que c'est un membre du comité directeur qui a été sanctionné pour détournement dañu dem palais président may xaalis association bi mu signé ci turu association bi douzième gaynde génn séddoo xaalis bi ñaata bokkoo woon ci ñu doon séddoo. non non non non dix la ñu joxe au nom du douzième ngaynde ñu signé au nom du douzième gaynde ñu génne ñoom ak Fall ak bande bi ñu àndal ils se sont partagé l' argent du douzième gaynde pas affaire mafia ñun on se respecte respecter ni gis ñu ne fii ñoom ñoo amul lu ñu def jàpp seen àdduna tekk ci douzième gaynde tekk ci supporter pour si am seen lu ñu bëgg affaire xaalis ñun loolu da xam nga xam ñun lu ñu andi. don de soi xam nga lu ñu indi sens élevé de devoir et de patriotisme ñun suñu ñax dañuy dundee du sam ngeen di ay jigéen ñu am ful la ñoo fa nekk góor ñu am fayda ñuy liggéey di tedd di def ci association bi mais pas di def di dundee ci association bi. beneen bi mooy. alors beneen bi mooy ñun sanctionné woon Pagode on a sanctionné la faute est-ce compris beneen bi mooy c'est pas moi qui ai sanctionné c'est le comité directeur ñoo réunir. jël sanction et nous bureau exécutif on veille à l'applicabilité de cette sanction. ok fi ñuy jeexle nag mooy moo ne bu woon da ngeen si poser question ñu duñ ci wax. parce que ñun soxla nañu ay leeral parce que ñun ñun. Mm-hmm. Mm-hmm. dañoo am objectif am benn mission. c'est pas des éléments yi ñoo ñu ñoo ñu détourné suñu objectif dañu am mission bu ñu assigné mooy promouvoir les valeurs la citoyenneté le respect des symboles. des emblèmes et des gestions de la République et les autorités qui les incarnent ci loolu ñu nekk ba tey barki démb nous avons été reçus par le premier ministre le ministre des sports Amadou Ba qui nous a félicité qui a réitéré son encouragement et qui a donné instruction à son cabinet à prendre en main invitation bi nga xam ne def nañ ko douzième ngeen fële ci Espagne. ñun ci loolu lañ nekk liggéey. d'accord Pape la ci ay détails la yoo xam ne ñun. ça dans un premier temps vous servez euh, au nom du peuple sénégalais parce que supporter nga mën nañu wax ne à chaque fois soo leen génnee à l'étranger dañuy représenter le Sénégal mm. et puis yaa ni sol les couleurs du pays euh, que mu ngay nekk ci benn affaire boo xamante ne andi coow affaire u xaalis affaire u intérêt boobu mooy benn est-ce que vous trouvez que ça normal deuxièmement mooy est-ce que vous trouvez que c'est normal que nga nekk à la tête euh, d'une entité euh, pendant on doit dire près de douze ans est-ce que vous trouvez ça c'est normal parce que nekkul yow kese yow yaa fi nekk est-ce que c'est normal. non je pense que comme question la xaw ma lan la mais limitation de mandat dans le domaine du sport ça n'existe pas. waaw si et puis bàyyi man fa la ma soxla. non pourquoi ngay wax limitation sport limitation mandat si sport ça n'existe pas. Augustin Senghor amul mandat c'est pas limité. non non non dama lay expliquer. Ah amul Augustin Senghor maanaam c'est pas limité. non amul amul mais mi ma ñaata mandat. mais mais Augustin Senghor depuis incha allah non waaw bàyyi ma àggali xam nga damay poser question donc bàyyi ma wax. non je veux dire que par exemple tu fais 4 ans. après on te ñu fal la wala ñu ñàkk la fal. non dama lay expliquer poste de président du nomination élection la mais élection nag boo ko déggee mooy ki nga wóolu. fal fal ki nga wóolu la. ok man dafa am kaay ma kaay ma jiite la ak kaay nga jiite ñu tant que ñu nekk xam ne ñu ngay jiite ñu ngi am kóolute ci yow yow amatu responsabilité bàyyi bi mooy. donc vous êtes pour non bàyyi ma àggale rek kenn du wax quoi mënoo nekk ci association bu def ay six mille et quelques personnes dix ans dix wala douze ans amul kenn ku génn di wax ma sàmm wala ma dem. mais parce que am nañ fulla gu tal ni bu ñu fekkoon li ñuy wax ñoom ñoom li ñuy wax dëgg léegi ñoom ñu ma la gën seen bopp léegi bi mooy ñu bi mooy li nga bàyyi ce que mës ngaa dégg problème xaalis 12 ans ngeen est-ce que mës nga dégg problème yooyu ci 12 ans ngeen amul mais parce que moom bokkoon na ci mosu ko dégg mais bi mu jëlee xaalis bi jël ko détourné ko ñu sanctionné ko moo tax muy génn mais man yi dama ko tontu na dama wax ak commission éthique bi ko convoqué te dama répondre